mu nekkoon ba tey jii bàyyiwu ko ci suuf wàcc leen ci suuf xadi yàlla wàccal wàcc leen ci suuf wàcc leen ci suuf ngañ ma jaaka wàccal wàccal ci suuf logo wàcc leen ci suuf wàcc leen wàccal ci suuf wàcc leen wàccal wàccal ci suuf damaa bëgg nga ma ñaan lu neex waaw ndax xam nga na ñaay moom ragalul dara fu ma sant ku fa sant kuy pause baa ngay def leneen di nga di ma abal maa ngi sama place ñaan la dëgg neexoon mais nag instant yi mënu maa génn dama yónnee pour ñu jël si bagage yi ndax instant te sant bu bees taa mais peinture naa def naa samay sarax samay xam nga ne samay ñaanal la déggoo mel la noonu nañ bàyyi ku ndayam gërëm. eh wuy ma damaa santaan nag tey jigéen laa damay bare place fa weere ko <laughs> waa départ nag génn na waa waaw baax na merci kontaan naa vraiment acca yokkal ñaani merci beaucoup léegi-léegi incha allah ok waaw fekk naa tey jigéen laa <laughs> ok damay ay mbër kañ lay gën a lu légère lu oyof ñu waxtaan ñu waxtaan wàcc leen wàcc leen bagage yi waaw joxal ma ko bagage xam nga place bu bees dafa metti affaire yooyu noonu mais sant naa nag ndax maa ngi def def naa samay sarax bale naa peinture naa ba mu rafet vraiment yow daal ñaanal ma rek mu jóg ay place place waaw dama bëgg a yëngal sam-sam daal waaw léegi joxal ma kii bagage yi mu ñëw ndax instant damaa jàpp waaw baax na merci beaucoup ñaani daal na vraiment <laughs> merci waay jërëjëf jërëjëf

t'as fait ce que t'as faisé là. Ndiaye Ndiaye noo def mané ne def eh, eh, eh. ah c'est la bonne qui kii c'est la bonne Mouné c'est la bonne man dégguma tubaab de wax a olof j'ai dit si c'est la bonne qui est là-bas xaaral mo wax la bu ma ja bu ma tekki li muy wax ey wax galas sama say mo kenn fa faa dégg tubaab boo xam tekki ma la di wax man xaw li ngay wax de yow xaw li ngay wax du jubóo na xaw li ngay wax ah j'ai dit. hey si c'est la bonne qui qui est là-bas c'est quoi. Hein? hey. Quoi? Ah! attends ça c'est pas vrai de ah. Un waxoon naa quoi de engagé là engagé téléphone ah man pas sais pas man moo man dama ci te place cest quoi ah boîte vocale encore. Non, non, pas non, non, non, hmm. non, lay non, non. eh je faut me dire quelque chose de clair. Hein? ah. mais non dis moi quelque chose de clair c'est quoi. de quelque chose place non? non, na place mooy ki Mon, de na man man ba may man la place man su comme day place foog nga dem ba fan yi mën na jël sa xaalis jox la ko. Eh! na bolina da na bolina baba dege ye eh! gong gong gong. waa Galas bolina da na bolina. Galas. na bolina da sama at mi yàq naa ko Galas. Yakana sama aduni pakinu tua mana mega mana mega ni mo fume mo fume mi kota. Dembesa, dembesa. Hmm. Dembesa, dembesa. Bigiri. Dembesa, dembesa. Kunana ho. Hey. Kimi kota bom kuri kimi ya. Hey. Kunana ho. Hey. Fume, diga tudo. indi problème bi eh, eh. kii borom kër gi dafa la yowoon place bi borom kër gi nit la xulee ñaari nit borom kër gi moo xulee ñaari nit. yem ak moom je kër gi borom kër gi daal la yowoon kii jooy nii kii pata bi mbëq na bi waaw. Eh, eh c'est quoi. dégg nga. c'est quoi ça. ne ku yàgg nga pour faut venir on va parler doucement là eh faut venir. eh eh. venir. Il sama venir. Il faut venir. faut venir. laisse ma main. laisse ma main. D'accord. Laisse, je vais laisser. Laisse d'abord, laisse d'abord, laisse d'abord. Ndaï. laisse C'est bon, c'est bon. Eh, Naboli Nata. Wenye. Angaz mo fi ñu fi ñu la pass. Ñaan ko ko ko ko ñaan lay may. Ma yaaka dañoo gañ. Ma jël juroom jinne. Te juroom jinne moy am eh, oh, eh, ah, nekk yow kii noo tudd yow Zara. Ah. sama fii mi ngi dem Zara ah! man nekkatuma fi Zara man dem naa xam naa. Hmm, dem naa Zara foo jëm oh, kii fu ma ko fay jëlee dama koy bàyyi mu rey la. Zara bu def noonu Zara dama dem nga jëlee ñuy booy yooyu xaalis lebal ma suba ma jox sa xaalis. yow yaa ma place bu ko luwee. am tuuti rek engagé la. njëriñ. engagé ma ci léegi anam moom. léegi ku fi des ba pare ñu lay dugal. tey dinaa la fayal waaye na la leer ne tey lay yem yow mën nga ne problème boo génn rek dugg bi ci wees faut pas me regarder n'importe quoi. te yor naa sa vingt-cinq mille. xoolal rek xoolal rek Zara xoolal rek wala nga woo sa waaj mën nga faa eh man nga noppi nga naan ma woo sa waaj. xoolal bi man vingt mille laa yor. vingt mille la vingt mille laa yor man xam naa li ma yor. Ça, c'est pas ça, ah je te ah donne 25 000. Madame, je vais être la garantie. La garantie de quoi Moi, je ne te connais pas. Mais je vais te donner 5 000. Ah, tu vas me le donner quand Demain. Tu reviens, Eh madame Madame Madame, faut pas m'énerver Madame, moi, je ne suis pas sénégalais, je suis, je suis ivoirienne. Moi, j'étais venu de mon pays pour venir ici pour travailler. C'est l'argent-là. J'ai travaillé dur là-bas, en cieux, dans le soleil, dans le pluie, tout pour avoir l'argent là pour venir ici. Et puis, à la fin, mais je me fais ça. C'était cette ce toi, t'as un beau cœur. Parce que si tu voulais là, tu n'allais pas faire ça. Je vais prendre ça. Demain matin, je vais revenir ici. Si je viens ici, s'il ne me donne pas les 5000, wallahi billahi, wallahi billahi, qu'on n'y a pas de bon fait de bâti cassé. c'est. ba dik do samba na de ko mbaba. Sëriñ bu ma a mag. Yow ka ni Hey. Ay ay

man damay def loolu xaw ma sax lan la. man li ma ànd ak yow man laa xamul lan la man. déedéet man man damaa man am rab. man man ma gën laa ami rab. waaye engagé du ma wax engagé du ma wax du ko wax dara dama koy dama koy seetaan na la samay vee mi samay vee delloo. koy la ko. wóor ma sa waaj. mani yow mën na ma bàyyi wóor ma sa waaj yow maa ngi dem maa ngi ñëwaat samay vee mi lijjanti ko foofu rek laa yem ak man lijjanti ak yow moom ma gën a lijjanti ak kër famille bii. alhamdulilah mënutul ñëwaat sama prix bi mënutul ñëwaat waa Léemu. nit koo xamante ne sax góor gi rox na ci marché bi. na ba pare. sama xarit Léemu sama xarit. loolu kañ la. Léemu sama xarit sama copine. bu ma dajee si Facebook muy laajte sa place bu doon sénégalais da sax mu xam nga qui voit oh le vent, le vent ni m'est cité, oh disait m'a cisé, quelqu'un a visé, visé. xam nga kan laay seet. imagine kooku teg tànk fii. xam nga kan laay wër. ki waay pesez tous vos koras. loolu di suñu hymne national. moom laay wër ki xaw a ñag la. ki waay loolu laay wër. lu tax nga koy wër. la soxla woon. xam nga yow engagé sa ba yow ginnaaw yàlla yow sama doom la. waaw ma bëgg la sama bopp yàlla. <laughs> Tidak tiga sampai bahkan di mana? Mele marak, mele marak, mele marak, mele marak, mele marak, parle mucho. Parle, parle.